Euh, salaamaaleykum tey nag maa ngi fii ci place Mountakha Bachir di sama waay macha allah euh, ñu koy ñëw di ko nuyu. Cheikh Bachir ñoo lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. waaw ñu ngi sant yàlla gëm sant Sëriñ Tuubaa. mais euh, leen lay laaj tey mooy corona bi ak couvre-feu bi nga xam ni yéen ay commerçant ngeen di jaayee kat tissu macha allah ci marché Ocass bi ndax période bi xew yi da daan bari nga xam ne da ngeen ciy jaay macha allah lu bari. heure bi daan fekk place yi fees dell euh, ndax couvre bi arrangé na leen wala corona bi métti na wala méttiwul wala ndax li ngeen daan jaay yéen ko jaay wala. Covid 19 bi loolu moom adduna bi ñëpp xam nañ ne actuellement guddi yi ñu na trop ci adduna la am waaw fi mu toll nii njaay ma waxtul waxi jaay bala ngaa waxtal tala jaay da ngay tala faju mbaa nga am wér yaram li am solo nag mooy que ñëpp xam nañ ko pigir bi lan la toog suñu kër tranquille heure bi su jotee ñu def ko ni ñu ko daa defee su heure wàcc jotee heure bi ñu daa wàcc ñu wàcc loolu mooy loolu loolu rek mooy saafara bi mais amaatul benn garab actuellement nii bi xew nii ci àdduna bi. yow daal noonu nga ko gisee daal couvre bi ñu respecté affaire yi. doxee ko ñi nga xamante loolu ko si moom la ko ñëpp bëggee muy citoyen kenn ku nekk citoyen nga fi nga nekk day raxasu ba set nettoyer sa nettoyer say loxo wut euh, lu demee nag euh, musuwaar yi soo ko mënee am loo ci mën am doyul nga jox ko ñi nga xam ñoom ngay liggéeyal ba képp koo xam mën nga koo jox. waaw loolu loolu la mais loolu loolu man gëm naa ne loolu suñu ko defee ñëpp def ko kenn ku ne respecté mesures yi incha allah kon nag dina fi jóge lu yàggul dara. Ah, macha allah bu ma sukkandikoo daa mel ne ndax euh, maanaam li may laajaat beneen bi mooy li ngeen naan jaay euh, actuellement avant feebar bi ndax yéen a ngi koy jaay wala léeg-léeg damay gis ñoo xam dañuy xëy ba suba nee nan toog duñ euh, dun sax gis client. waaw <laughs> c'est parce que waxum jaay moom bi mu doon nii waxatuñ ko xanaa kay social bi ni wax ñëw loo fi am def ko social. loo xëy suba def ñëw ci marché bi am dara génne ci dépense yi des nga def ko social coot lañ toll waaye actuellement toolu duñ wax waxuñ waaye waa war naa mën a ne nag boo waxee social foofu dinaa ci duggee ci sëñ Mountakha Bachir ci la duppee ndax dégg nga léegi li mu wax fan yi nee na ñu jaamu yàlla ku ne ka nga tane ndax kenn ku ne ki yor vélo sax moo moo tane ki nga xam ne yorul vélo ki yor moto moo tane ki nga xam ne vélo la yor kon maanaam par exemple comme ni mu ko waxee daal képp ku tane sa morom nan ko dimbalee te yow daa mel ne donnu nga sa turandoo foofu ndax bi nga ko waxee yàggul nan jaamu yàlla te kenn ku nga tane ñu social ko dimbale ko ci la nga yor te nee nga yaa ngi ci macha allah kon yow li lay laajaat mooy ndax ku dugg si fii dana def eau de javel dana laal sel. waaw sel am na fi sel baa ngi fii ci am na fi ñu ngi raxas ko set am na gis nga bëri ko yaakaar naa dem nga Asis am na yeneen bëri ngi ci mouvement Asis. man maa ngi ci mouvement Asis ci laa bokk membre laa si ci biir Asis euh, président Gallas Khouma jiite ko ñoom itam ñu ngi lay nuyu à passage di wax na def nañ lu rafet ci dëkk bi ñu ngi def ay social dimbalante sensibiliser nit ñi wut ay eau de javel wut ay saabu jox ko nit ñi wut lu mel ne suukar ak ceeb dimbalee ko doomu aadama en nag ñun suñu wàllu bopp am na social bu ñuy def ñoo ngi dimbale nit ñi nga xam ne nga dëkk boo fa jógee boo jàkk kër moo tax ci yàlla tax nga di ko def boo xëyee suba jur nga egg ci marché fa nga xëyee sa bunt kër da gis ñoo tane nga gis ñu ko nga jox leen ko macha allah ah sëñ Taxa Bachir doon na ko sa turandoo ci kaddu yi yëpp wax ji rafet na ñoo ngi lay gërëm di la jaar di la ñaanal jàmm ci barki Cheikhul Khadim jërëjëf. waaw ah, kontaan nañ trop Cheikh Mamadou Bachir ndax yow sunu xarit nga sunu soppee nga gis na ne liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy def dara taxul ngay def da nga koy def rek ci yàlla tax ak dimbala doomu aadama ak dimbala ñi nga xam ne ñoo leen tane di sensibiliser nit ñi fi ngeen toll guddeeg bëccëg di leen wax lu leen jëriñ ci ngay dëkk guddeeg bëccëg ñoo ngi lay sant ci loolu kontaan nañ trop am nañ mbégte bu rëy salaamaaleykum comme leen ko waxee woon rek macha allah ñu ngi ci bitigu xaarim cuuraay ah, ñëw fii nga xam ne ku ne xam na ni jigéen ñëpp dañ ne eh, xaadim cuuraay lan jox bopp macha allah cuuraay yu baax yu fort yu am personnalité boo ko bëggee fan ngay ñëw benn bitu rek la am nag dama ne na leer ci marché Ocass muy xaadim cuuraay bitik bi ci laa taxaw ni macha allah tey jii may def reportage bi ñëw ci moom di leen laaj ba xam jigéen ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañ daan ñëw ñuy soxla ay nemmali yu baax cuuraay xeet yooyu ndax ñoom mi ngi dox ba léegi wala seen bitik bi ni mu daan defee ambiance wala li daan jaay ñi ngi koy nuyu nan la Ah, fay na la sëñ bi ñu ngi lay ziar baax sëñ Lamine ñu ngi sant yàlla bu baax waaw question yi ma la posé mooy maanaam ndax li ngeen daan jaay yéen a ngi koy jaay wala couvre feu bi ah, neex na ci yéen wala métti na ci yéen wala seen boutique ni mu daan feese par rapport ak tey ji nga xam ne xew yi da daan bari ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañ daan ñibbisi dara doxut dara dematul nu ngeen ko gisee waa kon ni ko ñëpp gisee rek euh, bitig bi moom macha allah daan na am client waaye euh, ni àdduna demee moom ñëpp ko gis clientèle bi wax dëgg fa yàlla wàññeeku na waaye tamit ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yéen ngi sant yàlla daal bu baax. bu baaxa baax léegi yow a wàcc bi yéen comme par exemple ban heure ngeen daan wàcc ndax teel a wàcc bi mi leen di arrangé wala. waa teel a wàcc bi arrangé wu na mais munoo def lu dul def li autorités yi santaane. mais parce que bi bi muy doog am couvre-feu bi kese la woon boobu ñun d'habitude fii ñu ngi doon wàcc 21 heures doon obligé de wàcc 18 heures 30 après préfet may nu 16 euh, heures 30 ñu tënk ci loolu. ñu wàññi ko ba 15 heures aussi tamit amul benn problème danoo mais xam nga ni loolu métti na de yéen da ngeen daan xëy fii di macha allah di fees dell nga xam ne boobu daan ngeen jaay ba 21 heures ngeen wàcc 2 heures xam nga ni macha allah lool waaye am nañ yaakaar ni léegi mu jeex euh, est-ce yi daan ñëw di jugee man dama daan gis fii boutique bii moom ku ne xam na ni Dakar sax nit dafay jugee di jugee fu ne di ñëw di jënd ci euh, taamu xaadim cuuraay macha allah ndax seen i cuuraay man bi ma ko ma ko wax léegi yéen noonu ngeen ko dundee. waaw doy na waar moom clientèle bi wàññeeku na. mais bu jeexee rek ñëpp ñëwaat ndax ñoom danoo jàpp xaadim ndax produit bi muy jaay baaxaayam. waaw du du question dañ ko jàpp temporairement mais ñoom dañ ko jàpp toujours. moo tax am nañ yaakaar ne bu luy jeexee ni mu meloon léegi lay melaat incha allah. kon kontaan kàddu yi rafet na lool waaye ana xaadim moom mu ngi ci bagage léegi moom tout le temps mu ngi si dépôt yi di sélectionné bagage yi pour indi si place Euh, loo xam ne day am classe sa néeg di gunguni ba ci fenêtre yu jàmbur yi ñu naan nii di yër boo ko bëggee fenn ngay ñëw muy place u xaadim cuuraay macha allah kon nag euh, ñoo fi jaaroon rek ñëw ci xaadim cuuraay macha allah gërëm nañ leen sant nañ leen jërëjëf.